di ak yéen rek ci jataay yi nga xamne muassasatul wafa'i bi xuququl iman mo ci and ak yeen ci biir weeru koor gi tay nak ñuy dalal professeur Massamba Diouf mu bayiko ko ba Dakaru ngir fas bokk ak ñun ab jotaay tay fas seddok ñun liko yalla baxé ci wàll gi nga xamante ne moom lay yëngatu te mooy wàllu médecine bala ñu koy jox kàddu gi rek xam naa ne dañuy tënk as lëf rek ci lu gàtt ci lenn ci ay yëngutoom ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci Thiès la dugg ci université bu seexanta Anta foofu noonu foofu la amee diplôme ci wàllu santé waaye nag taxul mu yem ci loolu ndax am na yeneen diplôme yoo xamante ne am na ko ci wàllu santé am benn boo xamante ne ma ngi ko amee fële ci Bordeaux ci France waaye nag euh, fële ci Marseille tamit am na foofu ay diplôme yoo xamante ne yàlla baaxe na ko foofu foofu sax la amee doctorat doctorat ci wàllu médecine te bi muy am diplôme yooyu booba fekk na ko muy jàngale ci université bu Cheikh Anta mu nekk foofu comme professeur waaye nag euh, ci biir loolu ak farloom ak ku xereñeem ci wàllu liggéey bi tax ñu nommé ko mu nekk professeur agressé waaye nag yemu ci loolu yàlla baaxe na ko ba fii ñuy wax yéen moom professeur titulaire la nga xamante ne foofu la lijaasi yem ci ak kawe kon ñi nga xamante ne ñoo gën a xeriñ ci wàllu njàngale ci université bu Cheikh Anta moom yàlla baax ginaaw nag yàlla baaxe na ko ci wàllu googu noonu ci xam-xam tax na kuréel gi nga xamante ne ci la bokk mu yoonu murit moom mi ngi séddoo ak ñoom li nga xamante ne yàlla baaxee na ko ci wàllu googu noonu mën nañu wax ne moom membre la ci comité d'organisation bu Magal Touba jiite fa tamit wala bokk tamit ci euh, benn comité bu am solo boo xamante ne ci màggal gi la muy ñiy saytu wàllu wér-gi-yaram bu ñu ko ca mbas ma waxtu wa nga xamante ni ñu ngi doon natt la ba xam ndax warees naa mën a màggal ci biir mbas mi wala déet moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo taxawoon ne màggal gi warees na ko mën a def te dara du xew te tamit bañ àndeek moom ca loola tamit gis nañ ne yàlla dëppale nañu ak loola maanaam yàlla baaxe nañu bañ amal màggal ga ci anam goo xamante ne sax nag jàppoon nañu buñ màggal woon xaj na mooy gën a yées ci buñ màggalee loolu nag taxawaay la yoo xamante ne moom yàlla baaxe na ko ba fii ñuy waxe yéen ci wàllu googu noonu ma nga cay yëngutu loolu sax xaj na moo sabab ak déplacé wum tey jii nii ngir bokk ak ñu jataay bii nii mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo muy santé publique muy lu jëm ci wér yaramu askan wi loolu nag lu yaatoo yaatu la waaye nag comme moom spécialiste la ci wàllu googu noonu danañu tànnal ci biir santé publique ay points yoo xamante ne su ko indee incha allah képp koo xamante ne teew teewlu nga ko rek da nga ci mën a jariñu xam ne du ma guddal ci wàll googu noonu euh, li may def rek moom mooy wala ma koy jox kàddu gi danaa fàttali mbokk yi rek ne bu fekkente ne topp nañu ci biir rajo yi ak télévision yi ak ci internet bi danañu mën a ànd ak ñun ci biir waxtaan wi lu mel ne daarul Mouhty FM ak benn FM ak Bawal Média ak ICAP FM yooyu rajo moom en direct la ñuy def waxtaan wi ba tey tamit bu dee ci internet bi Bichri TV Alxadimiya Touba Vision ak ICAP TV yooyu yëpp en direct la ñuy def waxtaan wi bokk na tamit ci rajo yi nga xamante ne dañu jàllale waxtaan wi

dañuy jox kàddu gi professeur Massamba Diouf ci tom bu am solo bi nga xamantene ne lañu fassiyene ñu tay yàlla nako yàlla defal tawfiq defal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ bi aouzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina wa mawlana muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafahu xawli mbokk yi maa ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu maa ngi ziar di nuyu te di jiital ziar boobu nuyu boobu ki nga xamante ni mooy xalifa général des Mourides Cheikh Mourtaha di ci teg xalif général bi nekk fii sëriñ basiyo Anta di ci teg bépp kilifa boo xamante ni mu ngi ci yoonu Mouride wi mu ngi fii Daaru Muxti di wax rekk ne am nañ mbégte mu rëy ci teew bi ñu teew fii tey ndax xëy na lu ñu yàgg bëggoon la mais tay la ko sunu borom dogal di wax rek ne euh, ma ngi door yeksi fi dar muhti bari na luma ñew touba waye musuma yeksi daru muhti mo ne de daru muhti gi man fi la bok waaw loolu bëggoon na ñep xam ko xam ne wa daru muhti la ndax ki di serigne abdou mbake khadi koku nijaay akan la ci man Euh, bi mu ko xamee ak man bi ma ko xamee nag yàggul xëy na loo moom war a tax moo tax ba ñëw gi xawoon na yéex tuuti euh, te it nag ñi ma fi fekk bi ma ñëwee ba léegi ñu accueillir ma dalal ma euh, ñu nekk ñu baax ñu ma nawloo lool di samay sëriñ teg si ki ci jiitu mooy sëriñ Cheikhouna moom daanaka mën naa wax ne bi ko sëñ Abdou joxee sama numéro ba léegi ñu ngi pur pour préparer waxtan wi ni euh mu ci joggé amna ñeneen ñu mo bolel ku melni serigne Bassirou aussi euh, bokk na ci ñu ma doon jokol pour mëna fexé ba waxtan wi mëna taxaw bi ma ñëwee euh, sëñ mbay mii dalal moma euh, joyanti bama ma fi ma wara dal lepp nek lo xamanteni ak tawfiq gu reey reey la goo xamanteni mënuma mënu xam nim mëna def ci man ndax wax naa ko sànq ñun ñi nga xamante ni dañuy wooyee boroom xam-xam muy boroom xam-xam yi àdduna kese ñi ci ëpp bu ñu sañoon dañ leen di woo leen kaay leen waxtaan kaay leen fexe jël li nga xamante ni xam ngeen ko as tuut baaxee ko askan wi dinaa ci ñëwaat ci kanam ndax loolu bokk na ci li nga xamante ni loolu la santé publique war a def kon euh, mën naa jàpp. ne waa Al li nga xamante ni mooy initiative bii ñu jël mu yàgg lool xëy na maa ci yéex a jot man nekk na loo xamante ni lu nit ñi war a rafetlu la ci fépp fexe nag ba chaîne yi ngeen wax ne dañ koy euh, jàllale ak rajo yi ñu gën ko yaatal ndax waxtaan yu mel nii yaakaar naa ne waxuma sax sénégalais bu ne mais képp kuy doomu adama soxla nga waxtaan yu mel nii ñëw ba yegsi si yow nga jëriñu si njëriñu kese la bu rombee waxtaanu àdduna yi ñi ñuy waxtaan xam naa ne ci wàllu diine bari na luñ fay luñ fay suux bu baax a baax a baax xuus ci biir wax ci lu bari lu ama am am solo kon man mënuma lu rafetlu initiative bi mënuma lu leen fi ngeen ko teg xëy na sax tuuti naa ci def appréciation boobu waaye mënuma ko ñàkk def bëgg naa ci daal loolu bëggoon naa leen ko bëggoon naa leen ko wax euh, présent euh, waxoon naa ne ndax xamee ma woon ne balaa may tàmbali ñoom dinañ ma dinañ ma présenté dinañ wax man may kan ak sama jaar-jaar waaye euh, li am solo ba am solo mooy bi ñu ma wooyee dañ ne Tan man leen déedéet man professeur université la euh, professeur université am na fu muy toll euh, xëy na lingin fa sax waaye euh, duma ma leen tànnal li ngeen bëgg ma waxtaanee ko wax loolu ci loolu ci la ma sëñ Cheikh naa wax comme santé publique nga nekk suñu sañoon nga waxtaanal ñu ci santé publique mu nekk loo xamante lu yaatoo yaatu la loo xamante ni aussi bëri na ñoo xamante ni bëgg nañ xam li ci biir mais xamuñu ko ndax tey Sénégal foo toll spécialiste diw mii dey euh, am na nangam santé publique waaye dinaa ci ñëwaat ñi nga xamante ni ñooy euh, xëy na loolu dina am lu bari loo leen di comprendre ci wàllu sooxe bu système bi sooxee li ko ci li ko ci li ko ci mën a léegi pour waxtaan waxtaanu santé publique dinaa ko tënk ci maanaam ñetti point euh, bi ci njëkk mooy dinaa ko fexee tekki lan mooy santé publique euh, euh, nan ngeen di xam ne liikat mbirum santé publique la bu loolu weesoo dinaa wax lan moo ko beneen tomb bi ci topp mooy xamal leen lan mooy fonction yi maanaam santé publique lan ak lan la war a def la war a def ndax xëy na li nga war a def mën na bëri te doo def lépp bu jeexee euh, balaa may jeexal maanaam dinaa wax si euh, ñan ñoo ko siq ak lan mooy euh, intervention yi maanaam li muy faral di doxal ci biir réew mi ci wàllu système de santé bi ma sama tay euh di len wax rek ne conférence ci kalaama nasaran lañ koy def li ci ëpp mën na wax ne bi moy bu ñëk ci man may def luy niro conférence di def si kalama ko ci barma kon nak xeyna na dina am ay recc recc mais na ngeen ma jéggel bu baax ci recc recc li wóor daal mooy dinaa def suma kem kàttan ba li may wax euh, balaa may wax lan mooy santé publique dama bëggoon a wax lan mooy santé d'abord maanaam wér-gi-yaram mooy lan ndax wér-gi-yaram googu euh, bu ñu jàppee ñun ne wér-gu-yaram mooy ki nga xamante ni feebarul wala amul lu koy metti loolu rek mooy santé ñu ngi juum ndax kuréel gi gën a mag bi ñuy wooyee OMS nga xamante ni. dingeen ngeen ma wax bu ma leen waxee ni mu ko tekkee ne kon de daanaka mel na ni kenn amul wér-gu-yaram ndax tekkin la woo xamante ni yéeme na. xóot na xóot goo xamante ni du loo xaman mën naa wax ne lu yomba am la ah man de bu ma ci tënkoo jàpp naa ne aw ma ko li mu wax lan la mooy ki am wér yaram mooy ki nga xamante amul febar, dëgg la maanaam xaat boo xamante ni mën na ko gaañ ci wàllu wér yaram wala mën na am lu mu def ci wàllu wér yaram gi loolu boo ko déggee di nga xamante ne bon de am wér-gu-yaram jafe na ndax man bu ma toogee fii tey xalaat rek ne war naa jógee Daaru Muxti dem ba Ndakaaru te yoon wi mën naa fa sonn coono boobu may xalaat mën na am jeexantal yu mu def sama wàllu wér-gu-yaram kon daanaka aw ma wér-gu-yaram kon dégg nga kooku maanaam loolu yëpp ay yéene la war nañ fu ñu toll di góor góorlu pour mëna am loolu ñuy wax wér gu yaram kon wér gu yaram lo xamanteni la du luñ ngi gawa am mais fuñ toll dañu war gor lu suñu kiam katan ba suñu walu wér gu yaram gëna mu ci ayib nonu mën nañ ko ni tekkee waaye dafa am leneen lo xamanteni ni mënuñ ko ñaka wax tamit ndax bari na ño xamanteni ni génné fi ni ñi xamé né bërepp ne bërepp bu bërëbu fajukaay la wala ni ñi xamé ne ki mi mu wara sol war ko faje amna luñuy faral di gis loolu man ci sama walu xomon mako tuddé nan la ko mëna tuddé tuddee la manam bëgg lo gis xam ko bamay nekké nekkee ndongo euh, euh dañ kumpa sama dañ kumpa ci la jërëjëf sëriñ bi ci la waxon kenn ku may jangal ne ko waw ci walu wër gi yaram man dama gis ne am na benn jaan boo xamante boo demee ci hôpital fekk ko fa boo séenee ambulance muy romb nga fekk ko fa ah, léeg nga gis blouse yi mbub mi ñuy sol di ko fajee ñu def ko fa ma ne loolu fu mu jógee logo alwafa wala dafa mel ni eh, leneen ab logo boo xam ne dañ ko jël def ko ni lii mooy maanaam eh, logo buy tekki ne lii mooy comité d'organisation màggal Touba li ci ëpp buñ koy def dañuy toog ut koo xamante ni ci loolu la xam-xamam màcc jëm ñu ne ko defaral ñu ñu xool ne ah waaw lii de rafet na war nañ ko mën a jël comme logo li taxoon ma ko doon laaj du woon sax ne pour indil ko ay jafe-jafe mais dama bëggoon a xam ko laay dana ma xamu ko ma ne bon dinaa ko gëstu man it nag am na ay ab diir bu ma jël balaa ma koy door a gis benn livre bu ma euh, gisoon fenn jënd ko falaa fekk loolu maanaam ci sàkku xam-xam tamit euh, bokk nañ bokk na ci li ñuy wax maanaam euh, di di tey ba pare bañ a gaaw a bañ gaaw a découragé bañ gaaw ne lii daal du ma ko xam mënu ma xam bokk na ci li nga xamante ni en tout cas ñun dañu koy digal suñuy suñuy ndaw ne leen bu leen gaaw a découragé di leen góor góorlu ci li ngeen bëgg incha allahu rabbi boo leen bàyyiwul di ngeen am di ngeen ko am ci noonu ma fekk ko ci livre bi kon loolu mooy symbole maanaam mandarga bi nga xamante ni moom la ñuy gis xam ne lii mooy santé mandarga ko indi euh, jamono yi Grèce euh, ñoom mën nañu wax ne dañu amoon ay yàlla yu bari yu ñu daan jaamu yàlla yu bari am na ci koo xamante ne dañu doon wax ne ah, na ma ko suñu borom jéggal euh, askan pios la tuddoon oh, doom la woon ci ñenn ci seen mësa dafa mësa doon doxantu bi muy doxantu mu dem ba mu yàgg mu gis benn jaan bu génn bi jaan bi génnee mu mel ni lu xaw a tiit geesu gis luy niroog ab bant yet mu ne ko ciix jël dóor ko jaan bi bi mu dóoree jaan bi jaan bi xëm naka mu defe ne rey na ko ci kanam tuuti mu gis beneen moroomu jaanam génnee ci biir àll bi seexlu wërale ko ci kaw bopp jaan bi nga xam dafa xëm jaan bi ximiliku moom comme yàlla mayoon na ko mu mën a observer mu mën a mu gis ne ah kon de dafa mel ni ñax yi luy war a mën a faj la foofu daanaka mën nañu wax ne fa la euh, li ñuy wax vertu gis naa ko ci fondation Al Wafa bi ngeen wax ko euh, euh, vertu gàncax vertu Euh, plante médicinale maanaam garab yi nga xamante ni mu ngi ci suñu environnement mën lim mën a faj ci wàllu wér yaram foofu la njëkk a tàmbalee. di mandargal wér yaram jóge maanaam da ngeen gis benn bant bu nekk nii am benn jaan bu laxasu ci kaw jaan boobu loolu solo si foofu la jóge foofu la li nga xamante ni mooy. li ñuy woyé caducé ci walu kàllaama nasaran walu wér-gu-yaram foofu la joggé mu nekk lo xamanteni ku ko gisati ak fu munti doon na xamné li walu wàllu yaram la waaw euh mu nekk lo xamanteni lu xawa lu xawa yaatu la comme nima ko waxee sama njëlbeenu waxtaan ndaxte dañ leen di faral di maanaam lépp loo xamante ni day kaaraange la ci wàllu wér-gu-yaram day dox ci kaaraange wala lépp loo xamante ni day dimbali ba wér-gu-yaram gi ñoŋ pour askan wi wala lépp loo xamante ni day fekk koo xamante ni dafa tawat mu dimbali ko ba mu mën a amaat wér-gu-yaramam képp koo xamante ni maanaam tawatam sori woon lool ba jural ko yenn jafe-jafe yi mëntul dox la tànk boobu doon def mu koy def wala la loxo boobu doon def di ko def kon daanaka gis ngeen ne santé publique boo ko jëlee ci maanaam tekkin woowu nekk na loo xamante ni lu yaatu la kon day mel ni lépp luy ñiy faj wàllu wér-gu-yaram wala ñiy faj wàllu xale wala wàllu bopp wala wàllu bëñ ñëpp ñi nga xamante ne yëngatu ci loolu ñëpp santé publique moo nekk ci du wax ne moo nekk ci kaw mais mën na leen a lënkal boobu mooy bi ci njëkk beneen bi ci topp dañuy wax ne euh, mbooleem xeeti xeeti xam-xam science yi nga xamante ni day ànd ak aptitude maanaam li nit ki mën def bon xam-xam ak mën-mën boo ko boolee pour jëriñ askan wi waxuñu benn nit mais mbooloo ndax tey jii boo gisee ki nga xam ne yor na clinique am privé mën na am benn nit wala ñaar mën-mën yoo xamante ni yu yaatoo yaatu la boobaa jëmale ko ci askan wu gën a yaatu mën nañu wax ne li ngay def noonu santé publique kon lu mel ni waxtaan wi ñuy def nii nga xamante ni ñii toog fii bokk nañ ci ñi siy jëriñu waaye ñi ñuy seetaan ci euh, télé yi wala YouTube yi wala Facebook bi ñooñu aussi dañ ciy jëriñu mën nañ jàpp ne lii dara gënu koo nekk euh, maanaam activité wala. dara gënu ko yokk ceegi nekk ndax xam-xam bu leer la boo leen fii génnee. di ko tas ci askan wi ñëpp jëriñu ci loolu mën naa ko wax ne euh, lu ñuy liggéey fii la muy lu méngook santé publique euh, bu fekkente ne dañ ci sax di ko def daanaka daf ñuy indi ci li ñuy wax ci wàllu nasaraan finalité santé publique finalité santé publique boobu mooy euh, ñi nga xamante ni am nañ yaakaar nañ ne am nañ wér-gu-yaram ñu fekk seen wér yaram boobu ba leneen du ci mën a du ci mën a dugaat pour yàqal leen ko wala fexe ba ñi nga xamante ni amoon nañ ay jafe-jafe seen jafe-jafe yooyu ci wàllu wér yaram mën a dëñ di ngeen ma wax nag ne ma ba léegi santé publique réglé wul problème mu euh, euh, maanaam tekkin woowu ma joxe woon ci départ bi ne loolu mooy wér-gu-yaram mënugu koo réglé pour mëna def santé publique buñ fa jaaré wër gu yaram gogu dana am manam lolu nga xamanteni mëna doon mën nañ ko mengalé gënt mën nañ ko am buñ ko respecté lu jafé la euh benen bi ci top waxnako ci si si sama mm, kàddu yu ñëk fexé ba nga xamanteni xëy na yow boo bëggee dem faju mën ngaa faju waaye man bu ma bëggee faju am na lu bari lu mu laaj loo xamante ni awma ko kon du ma mën a faju kon santé publique na mu war a doxee doxewu ko mooy li ñuy woowe disparité wala inégalité bari na ñoo xamante ni xëy na amuñu xaalis bi tax ñu faju wala bu ñu amee xaalis dog bi ñu jóg bi ñu war a mën a jóg dox ko dem fi ñuy dëgg dëgg la ñuy jàngoro bi ñuy tawat mën na koo mën na koo faj duñ ko fa fekk kon daanaka mel na ni ki nga xamante ni moo ngi ndakaaru ak ki nga xamante ni xëy na duma wax daaru muuti ndax fii jege na Touba te tuubaa la am ndakaaru daanaka am na fa euh, mais damay wax ki nga xamante ni mu ngi dëkk benn dëkk àll bu ñuy wooyee ndoj bu fi sëñ Abdou nekkoon dina leen wax ndoj fan la ne ndoj googu ña fa yeewoo bokkuñoo ki nga biñ bëgg la euh, beneen bi nga xamante ni moo ci topp mooy fexe ba musiba buy ñëw wala bu yegsee ñu mën ko waajal waajal goo xamante ni bu yegsee rek nam war a mën a yàqee wala loraange yam war a mën a def du ko def kon di ngeen gis ne daanaka santé publique moom yaatu na yaatuwaay goo xamante ni euh, lépp luy wàllu wér-gu-yaram boo yurndoo da fa fekk. benn ci benn anam bi euh, beneen bi ci topp mooy bu mujj bi ma bëgg a wax toujours ci li nga xamante ni mooy finalité santé publique bi mooy fexe ba nga xamante ni looleen di système mooy maanaam euh, lépp loo xamante ni day day fexe ba santé boobu mën a nekk li système bi ci boppam dañuy fexe ba nga xamante ni système bi dina viable yomb ndax ni système bi tëddee la xëy na système bi bu ma leen ko expliquer euh, di ngeen war a mën a xam nan la demee te baax na tamit moo wax ko ndax ñëpp xam ko euh, fii Sénégal boo xoolee wala ci dëkk yi ëpp ci Afrique seen système de santé ñu ngi ko bindee mu mel ni puju néegu ñax bu dee néegu ñax am na fi wala ndongo daara yi dinañ xam lan mooy néegu ñax ci néeg bi jël ñax mi wërale ko wala boog fii boo ñëwee di nga fi fekk néegu zeng yoo xamante ni ci kaw day wërale mel euh, lay nekk ca kaw moom mooy moom mooy puj ba moom la ñuy wooyee puj ci wolof euh, système bi noonu la mel maanaam dafa am ñu nekk ca kaw am ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf am loo xamante ni moo nekk ci diggante bi tey jii boo ñëwee xool faj wàllu faj day jóge fi gën a yaatu yéeg ba ci kaw maanaam eh, ci kaw la càkk eh, ci suuf la càkkaar bi yaatu eh, paj mi di jógee yéeg ba ci kaw loolu li muy tekki rek mooy tey bu nit feebaree fii ci Daaru Muxti koñ ba mu dëkk bu dee yoon rek la war na mën a am wala koñ ya dëkk war na mën a am benn poste de santé boo xamante ni ku feebar ku ne sa koñ ngay njëkk a xool ba xam am na bërëb boo xam dañ fay faj nit bu ko fa amee nga jaar fa ñooñu xool bi nga xamante nii moom la ñuy wooyee euh, centre de santé yi centre de santé boobu moom lay poste de santé bi di wax ne yow kat comme man fii laa mën a yem ci yow demal ci centre de santé bi ñu xoolal la sa wér gu li ma mënoon man def naa ko bind kayit jox la nga dem ci kooku boo demee ci kooku kooku def li mu war a def jox la ne la demal ci hôpital bii nga xamante ni moo topp ci centre de santé bi ñu koy wooyee hôpital niveau de maanaam lépp dañ ko fii rek ne damay dem ndakaar faju ji warul demee noonu boo demee it xëy na dana nekk loo xamante ni li tubaab di wax rationalisation defaloo ko sa bopp ndax mënoon naa nekk ne li la dal mën nga koo faj ci poste de santé bi poste de santé boobu am na ay jumtuwaay wala am na ñoo xamante ni ña fa demee non ndax kenn ku nek xamna professeur Massamba Diouf de yaakaar naa mu ngi université ma nga hôpital sangam buma ko woyé dana ma wara a oudou a rendez-vous mo mën ta faj moy xolal li la wër bo fa mënee faju nga faju fa bo fa ta faju ñoo dañ la bindal kayit ne la demal nga xol bi ci top. Fi nak yalla dogal na né danaka comme ni ko li am Dakar am fi poste de santé bi bu la mënul faj même bir Dakar gi ma len di wax ko ñi amna ay poste de santé mais kenn yar danaka ñep dañuy dem hôpital dante wala CTO wala dem euh, pikin hôpital pikin wala fan fep fo xam yaakar nga ne amna na ay professeur waye ngay jog dem ba fofu sori na sori go xamanteni organisé woo pyramide la pyramide bi mooy li sës ci yow fa ngay dem ñu xool la bu ñu mënul ci yow ñoom danañ la yebal fa nga war a dem boo demee foofu ñoo ñooñu bu ñu ci mënul danañ la yebal fa nga war a dem boo waree ñëw dakaar wala nga ñëw hôpital Cheikh Ahmad Khadim da nga fa da fa da nga mën a dem fekk fa ñi nga xamante ni danañ la faj waaye nag léeg-léeg dinaa leen ko nangul da dem ci post ba xëy na doo fa fekk kala war a faj danañ def ci yow li nga war a def loolu nangul naa ko xam naa ne looloo fi ne waaw kon nag yàlla nañu yàlla dimbali ba ëllëg ñu am système boo xamante ni képp ku bëgg a faju même boo amee poste sa buntu kër boo fa demee la nga bëgg ci wàllu wér-gu-yaram da ko fa am yàlla nañu ko yàlla defal am naa yaakaar ne loolu war naa war naa mën a nekk kon euh, jàpp naa ne loolu di système de santé euh, xam ngeen fi mu nekk nii naka lay doxee loolu wàllu santé publique tox war nañoo mën a fexe poste de santé bu ne am benn médecin waaye loolu dafa am lu muy laaj la muy laaj mooy fexe ba li ñuy tàggat ci ay ay ay ndongo yoo xam bu ñu génnee doon ay docteur bari loolu nag Sénégal xëy na amagul euh, euh, moyens yi jumtuwaay yi koy mën a may mu yegg foofu ba nga képp ku bëgg a faju rek ka nga bëgg mu faj la moo lay faj xëy na ci kanam danañ fa war a mën a yegg euh, équipement yi am naa yaakaar ne post yu bari amuñu rajo mënoo ko faa def dañ lay bindal kayit ne la demal hôpital yenn saa yi sax euh, li nga bëgg a def ci rajo bu dee Touba nga nekk amu fi dañ naa la demal ba Ndakaaru ñi am moyen ñooñu dañuy génn sax Sénégal dem faju ji loolu ñëpp seede nañ ko euh, borom yu barke yi. day xeex li nga xam mooy disparité li nga xam ne mooy ñëpp bañ a yem ci wàllu wàllu wàllu wér-gu-yaram loolu santé publique Sénégal en tout cas réussir ko Afrique bëriwut dëkk yoo xamante ni ñi war a faju ñëpp fi ñu bëgg a fajoo bu ñu demee dinañ fa fajoo te duñ sonn loolu bariwul Afrique waaye nag bu ñu ñàkk yaakaar benn yoon mën nañoo jàpp ne ëllëg suñu borom dañu dimbale tegal ñu fi njiit ñuy dimbale ba lépp lu ñu soxla ci wàllu wér gu ñu am ko voilà léegi bu ma am na lu ma si jot a wax déjà euh, mais naka lañ koy defee loolu mooy euh, li am solo buñ ne dañu bëgg aar nit ki fexe ba nga xamante ni liy wàllu wér-gu-yaram bu ko amee mu téye ko nan la nit kooku war a def fan lañu war a teg suñu tànk wala teg suñu baaraam ba mën koo dimbali ba loolu mën a nekk euh, mën nañ ci joxe benn exemple lu mel ni hygiène alimentaire maanaam mooy loolu kenn ku ne mën nga ko defal sa bopp ndax la ngay lekk yaa koy xool ba gis ko ni lii mën naa ko lekk nga lekk ko boo koy lekk it da nga jël say matuwaay ba nga xamante ni bu dee loo war a raxas la danga ko raxas bu dee loo war a togg ba mu ñor la doo ko lekk ci xaayaay bi ndax loolu yépp mën na la indil ay doomu jàngoro donc hygiène alimentaire boobu saytu sa la ngay lekk ba lekk nekk lu lu lu baax lu mucc ayib loolu bokk na ci ni ñuy def ba mën a protéger. Euh, lekk wax naan la ngay naan ndox ma war na mën a nekk ndox moo xamante ni euh, ndox mu sell la loolu nag di ngeen ma wax ne ma ndox mu sell boobu ñuy naan ñun ñoo ko war a jox suñ bopp xëy na ñëpp dañuy fay impo ku sañoon ku ne ndox ba ngay naan nekk ndox bu bu sell am na ay bërëb yoo xam ne seen ndox sell na mais am na bërëb yoo xamante ni aussi boo fa demee la ngay naan ci ndox danga xam xel ne ndox mii ngay naan baaxut kon assainissement bi tamit boo ko xoolee ci suñu environnement la bokk loolu it bokk na ci loo xamante ni buñ ko defee buñ ko deful ni ko war a defee suñu sooxe fenn kon bokk na ci li ñu war a def yépp ñu xool la lekk nan la nan la mel li ñuy naan nan la mel li nga xamante ni mooy li ñuy jëfandikoo muy ndox mu bon mi nga xamante ni dañuy wër ñu fexe ba bum ñu bum ñu indil benn benn jafe-jafe am na benn euh, point bu am solo boo xamante ni ku ñëw ba fu mel ni Touba mënoo ko fay ñàkk a waxtaanee dinaa ci ñëwaat lu gën a yaatu xëy na balaa may jeexal waxtaan bi mooy protection boobu maanaam kaaraange gi garab gi ngay jëfandikoo boo feebaree bokk na ci nga xam garab googu ban garab la maanaam fan laa ko war a jëndee fan laa war a garab kan moo ma ko war a digal ba ma jël ko pour sama wàllu wér gu ndax boo génnee fii gis pharmacie waaye boo xoolee ci wet gi dinga gis li ñuy wooyee dépôt ci wàllu tubaab anam koo xamante day ibbi këram benn magasin. xëy na garab yooyu euh, condition yu mu war a nekk maanaam anam yi nga xamante ni moom la war a nekk pour nit ki mën ko jëfandikoo xëy na garab gi nekkul ci nekkul ci anam yooyu naa ci ñëwaat ci ci anam bu gën a anam bu gën a yaatu am na nag yeneen façon euh, activité yoo xamante ni mën nañ ko def. lépp luy euh, luy war a mën a indi loraange ci wàllu wér-gu-yaram euh, buñ ko doxalee euh, activité yooyu noonu mën nañu dimbale mu amaat aussi beneen point ci wàllu fonction yooyu ma doon wax yi santé publique di def lu ñuy wooyee promotion promotion de la santé mooy fexe ba li nga si jot a am muy lu baax ci wàllu wér-gu-yaram euh, muy loo xamante ni yaa ko yaa ko xeex ba amal ko sa bopp da ngay fexe ba loolu nga deseeg moom li ci war a liñ ci war a njëkk a wax ni ñu xam ko mooy am na ñoo xam ne naturellement wéruñu maanaam Euh, ba ñu juddoo dañu judduwaale loo xamante ni eh, looloo tax ba seen wér-gu-yaram mënta mënta mel niñ ko bëggee koo xamante ni maanaam yàlla dafa dogal ah, sa papa am asthme wala sa yaay am asthme nga juddu am asma asthme boobu mën na def ba nga xamante ni li ngay xaar ci sa wér-gu-yaram am na feebar yu bari yoo xamante ni euh, ci wàllu biologie lay jóge kon kooku mën nañ jàpp ne bu amee loolu li muy moytu mooy lii tax ba bu dee asthme la crise bi du ko am ah, bu fekkente ne leneen la loo xamante ni aussi dañ ne ko bu doxee naaju tàng feebar bi mën na ko sonal. looy looy donn la wala looy looy judduwaale la ak sa ak sa ak sa wàllu wér gu mu indi ci ay sooxe. amna aussi ci walu promotion bobu ma doon wax mbir mu ñuy wax comportement manam, sa nekkin loolu li ma ci mën a wax lu ci bari yéen a ma ko gën a xam ndax fexe naa ci sama wàllu gëstu ma ama am solo ci wàllu ci wàllu comportement boobu noonu euh, euh, bi ci njëkk xëy na sëñ son bu sax moo ko bind muy xuratul ay ni su ma juumul euh, mu ngi ciy wax ci benn passage ni nit ki bu lekkee maanaam bu reeree guddi balaa muy tëdd war naa mën a dox nangami jéego pour lekk gi mu lekk mën a rees mu bañ am benn jafe-jafe bu nelawee xam nga bon ci wàllu comportement kontu bo len lekke bu len dem teud de len fexé ba xaar li ngeen lek mu res di len euh, baña baña di def li ñuy woy sport leg leg lolu bala ñun ñukoy wax euh suñu suñu mag ñu bax ñi len nañ ci anam yu bari len nañ ko aussi ci kàllaama gi nga xamanteni kep kuy ndongo dara war nga ko jang xam li moy li nga wara def pour sa walu wer gu gëna gën a gis na ko ci euh, téré bobu waye am aussi silkul jawahir bobu cheikhul khadim mu ngi ciy wax ci walu bonne conduite xeyna ñi xam euh numu koy wara mëna mën ci wolof bonne conduite bobu euh, manam na nga war nekké ba manam kenn dula xarab yalla mi la bind sax euh dula xarab ndax la nga warlok mom yang koy def fa nga wara yam ak mom yang fa yam ko wara jox yang bonne conduite boobu maanaam nekkin boobu nga war a nekk ak sa borom mu nekk nekkin bu mucc ayib mu teg si ne war ngaa amaat nekkin boo xamante ni yow ak say dëkkandoor nekkin bu rafet lay doon na sàmm na nga sàmm aussi nekkin bi ngay nekk ak sa bopp kon mu ngi jàngal ñun nan lañ war a mën a nekkeek suñu bopp ba duñu lor suñu bopp ndax kenn ku ne yaa moom sa bopp waaye tamit moomoo sa bopp ndax amaana ne am na noo boo defee wala bu ñu ko toppee ñu ngi def santé publique mooy ci wàllu comportement boobu mu am ñaari téere benn bi Cheikhul Khadim bind ko bi ci des wax naa ne su ma juumul sëriñ son bi moo ko bind mu nekk loo xamante ni bu ñu ko gëstoo danañ ca fekkaat leneen loo xamante ni luy am jeexantal la ci wàllu ci wàllu wér-gu-yaram euh, beneen point bi ci topp mooy suñu environnement tey jii mën ngaa am wér-gu-yaram gu mucc ayib ndax fi nga dëkk am na ay gàncax fi nga dëkk am na ndox fi nga dëkk am na jant fi nga dëkk am na poussière am na lu ne li ñu wër yépp daal daanaka benn bu ci nekk am na jeexantal bu ñuy def si ñun ci lu baax comme ci safaan ba mu ngi aju ci yow nan ngay nekk ne ko maanaam jaarale ko fu mu war a jaar dem fa nga xamante ni bu fa yeggee du lor kenn bu fekkente ne ndox moo war a jëfandikoo la wax nañ la ndox mi nu mu war a mel boo ko defee jëfandikoo façon ngi ndox boobu lenn lu lay gaañ du la ci fekk bu dee ndox mu mucc ayib la boo ko naanee dana la defal ci sa wàllu wér-gu-yaram loo xamante ni dana la jëriñ kon donc li may wax ne lépp mu ngi aju ci ni nga koy jëfandikoo. dana la lor bu dee lu la war a mën a jëriñ la boo ko defee aussi mën na laa mën na laa indil wér-gu-yaram gu mu ci ayib euh, loolu benn exemple la woon waaye tamit euh, euh, ci biir promotion bi ma doon wax ni ngay def wér-gu-yaram bi gën a gën a mu ci ayib am na ci lu ñuy wooye système de santé système de soins plutôt système de soins mooy li nga xamante ni buñ ko dajalee danañ fexe ba boo ñëwee bëgg ñu fajal Eh, li mu ëmb dafa bari ndax wax naa leen sànq ne boo demee hôpital pour sa bëñ li ngay njëkk a xool mooy ndax dentiste baa nga fa bu fa dentiste ba nekkee dentiste bi dana la wax ba xam moom la mu war a jëfandikoo pour faj la am na ko wala amu ko bu loolu weesoo aussi dana la wax ñaata ngay fay pour nga mu mën a faju ci anam bi nga ko bëggee yëpp kon daanaka gis ngeen ne lépp dafa xaw a jaxasoo ba nga xamante ni mën nañ jàpp ne euh, pour mën a xëy na duñ ko mën a duñ ko mën a dajale am na benn benn euh, point aussi bu ma bëggoon a euh, bu ma bëggoon euh, wax lu am solo mooy tey jii ñun dañu jàngal ne boo bëggee wax ay nit ñu jëfandikoo seen wàllu xam-xam walla seen wàllu nekkin ba seen wér-gu-yaram mu ci ayib il faut que lan leen di defal nga fexe ba ñoom ñu xam liñ leen di defal lan la ñu bokk sax si lañ leen di defal amna borom xam-xam bu mag buy wax ne bo ma bëggee defal dara wala jëriñ ma ci benn mbir te man mi ngi koy jëriñ boole woo ma da ngay wax rek mais defoo ko pour man maanaam euh, bu fekkente ne yow da nga ma bëgg da nga ma bëgg mënuma wax sax euh, da nga ma bëgg jox ndogu te ndogu bi nga xamante xam nga ne man jigéen la ndogu bi ma gis moo ma joxe ko exemple euh, yaa ngi koy togg maa ngi ci kër gi dara doxul li may def xëy na loolu ci teraanga la bokk donc gis naa li may toggal lan la ah, xëy na xoolil naa la sax euh, carottes yi wala légumes yi jox la pour nga mën a togg boobaa santé publique yi ñuy doxal ñun dañuy wax ne askan wi bu ñu leen bëgg a defloo dara nañ fexe ba loolu ñu leen bëgg a defloo ca njëlbeen nga ñu boole leen ci mooy implication communautaire loolu dafa am solo ba nga xamante ni man dafa am benn benn jàngat bu ma ci bu ma ci defoon euh, toujours bi may liir euh, mbindi Serigne yi dama ci liir benn téere bu ñuy wax Majmahun Nurayni jàng ko dama Euh, gis nañ li ñu bind jang ko euh, xam lan la wara doon danaka lañu tuba ba jangalo dañ ko jël tek ko fele jël li serigne bi wax ndax mo gëna mëna mo ñu gëna mëna dimbali pour message bi ñi jallalé mu mëna jall ci walu implication communautaire serigne bi dafa wax ne ci walu xam-xam pour nga wax nit dara mu xam ko wala mu comprendre li ngay wax aynul yaqin ak xaqul aqin xaqul yaqin boobu mooy bi mujj mais balaa nga fa yegg am na ñaar yeneen yu nekk ci kanamam yoo war a yoo war a fexe xam mu ne ci misaal mooy yow mi ñu ñëw ne la géej gi am na ndox xëy na boo mësee gis géej di nga xam ne géej ndox a fa ne wala boog mës ngaa dégg ñu ne la géej ndox a fa ne li may wax nii yéen ñëpp géej gii kat mu ngi nii nii lay mel gis nga ndox may nekk ci kaw boobu it loo gis la loo gis benn yoon mën nga kaa jàpp waaye sëriñ bi dane bu leen yam ci loolu ndax ñun suñu njàngale loolu la ñuy wax dañ naan nañ fexe liñ leen di def loo ngeen gis ko boo leen ko gisee rek di ngeen ko mën sëriñ bi dane déedéet jël leen ko ngeen sóob ko ci géej gi génnee ko boobaa buñ ne ko géej ndox fa nekk du ci amati benn implication communautaire bi manam nan la def ba askan wi meuna ñew bokku ci li ñuy def wala ñu neene li pour yeen la len ko naka la def ba ñom ñu nangu ko jël sëriñ bi rek tek ko fofu su ko defé ñom dinañ xam liñ leen di wax euh, lan la ak ban njëriñ lañ ci wara meuna meuna a aussi benen euh tombe bu ñuy woyé prévention prévention moy suma moy fegu naka ngay def ba febar du dal wala nan ngay def ba bu mu yem du yegg wala nan ngay def ba bu yemee fenn fi aussi fa mu war a mën a yegg pour mën la indi jafe-jafe yu rëy du fa yegg donc prévention ñetti niveau yooyu la gémmiñam bu xëyee wala gën ngaa néew bu xëyee wala buy tëdd ñaari waxtu yooyu bu ko borosoo xëy na du am bëñ bu bënn mu jëfandikoo xam-xam boobu ko docteur bi wax ba boo xoolee gémmiñ gi bu ubbee doo fa gis benn bëñ bu bënn kon kooku li muy def mooy xeetu fegu bi njëkk boobu nag moo gën ci fegu yépp ndax feebaroo bay dem fenn beneen ba ca topp mu yem ci bu fekkente ne luy bañ di def la deuxième niveau prévention bi waaye nag yamul foofu rek euh, pour wax leen ne leen rek euh, ñi nga xam dañuy santé publique fu ñu ñu ngi jéem a naka la def ba kenn bu mu ñàkk képp am nga yàqu ñu buddi waaye dalay wax ne boo yemee ci buddil nañ ma rek ne amoo leneen lu may def boobaa dootoo amati santé kon war ngaa xool naka ngay def ba loolu ñu bind nga ut lu ko remplacer loo fay teg ba la bëñ ba doon def mu jéem kaa def ba du lu indil benn jafe-jafe ndax kenn ku ne xam na ne xëy na wax na leen ko keroog boo boo di seere foo toll am di ngay gis ne euh, ku mënta am bëñam yépp même ci wàllu ngóora day des ndax euh, misaal bi ma leen ci jox bu ndaw rek mooy boo leen doon yëkkati tey lu diis lu diis gan mën leen ko yëkkati ŋàng boo leen ŋaangee du mës a jóg waaye foo ngeen seere seen bëñ pour li ngeen yëkkati mën a jóg kon dafa nekk loo xamante ni. Euh, ñetteelu ñetteelu xeetu prévention bi lu ama am solo la kon yaacaaral warul am fenn lépp luñ mën a def ba may lekk melul na mu war a nekk ba ma am jabet am naa jabet dem naa ci docteur bi wax na ma ko la ma wax naa ko fexee jéem a respecté ba sama jabet bu ma indil benn jafe-jafe kon maa ngi def prévention secondaire ñaareelu xeetu prévention waaye nag bu ma xoolee ba jabet bi jural ma ba ñu wadd fayam naa jéem a bàyyi la ma doon def ba mu jural ma tànk bu dagg bi te ma fexe tànk boobu ñu pooseel ma ko ba ma mën cee dox kon daanaka loolu yëpp nekk na bi yeksi pour mën a jëmmal waxtaan wi su ma ko gisee dinaa ko dinaa ko nuyu sargal ko ndax yàlla dogal ne xamante nañ euh, lu jiitu fii ñu daje ndax mooy président conseil d' administration hôpital Matlaboul Fawzeyni léeg-léeg ma fay ñëw di bokk ak moom ay réunion mu nekk koo xamante ni suñu kilifa la euh, ku ñu ku ñu fonk la koo xamante ni Euh, wax naa mbirum naka la ñuy def ba aar suñu wér-gu-yaram wax naa liy promotion maanaam bu ñu amee astut ci wér-gu-yaram nan la ñuy def ba loolu ñu des ak moom ba dara du ko yàq wax naa aussi naka la ñuy fexe ba xeex li ñuy wooyee déterminant de la santé muy li ñu wër loo xamante ni lu ñu judduwaale la wala loo xamante suñu nekkin la wala loo xamante li ñu Euh, mooy ni nga xamante ni noonu la ñuy def ñun fu ñu toll maanaam di natt di natt wérgu yaramu nit ñi di natt liy aju ci wérgu yaram pour mën di joyanti loolu la ñuy wooyee évaluation bu ñu ko doon def ni ñu ko war a defee fii Sénégal xëy na lu bari mu ngi sooxe boobaa doonu loon sooxe mais mën naa jàpp ne ñu ngi koy def gaa waaye nañ ko ñu fay loru wala ñoo xamante ni xëy na duñu duñu kontaan torop wa loolu nekkoon lo loo lu am solo la ci wàllu joyanti bobu ci wàllu natt bi ba nga xamante ni boo nattee dara ba xam li nga natt fu mu toll dana tax nga xam li ñuy bi priorité naka ngay xamee ne lii ak lii ak lii mooy li ma war a def mooy li am solo li ma war def loolu mooy priorité ba wax ne priorité la évaluation donc évaluation bi dafa bokk ci li santé publique di def ba nga xamante ni dana tax boobaa mu mën indi ay priorités, mu mën indi aussi xam yan activité lay lay dérouler pour mën a dimbali nit ki wala dimbale communauté bi ba du am benn jafe-jafe ci walu walu wergu yam amna nak benen fonction bu ñuy wooye surveillance surveillance aussi moy toujours di saytu taxaw tém rek fexé gawal touti euh dugg ci bir euh, mesure yi wala intervention yi manam li nga xamanteni luñ wara def la buñu ñu lo xamanteni du ni euh, euh bi ci njëkk moy exemple bi may joxé moy bi Covid ñëwé Sénégal ñëpp gis nañ euh lim fi def ci ay ay musiba du jeex def na ko biir Sénégal waaye lépp lum ci mun doon lu nekk rek bu fekkente ne xam nga ne mu ngi ñëw wala yaakaar nga ne mën naa ñëw boo ko waajalee bu ñëwee it na mu war a du leen ko sonalee te loolu bokk na ci li nga xamante ni loolu la santé publique war a def kon euh, dañuy gis ne jamono bii ñu toll nii ak xeetu feebar yi nga xamante ni day ñëw ci àdduna bi dafa tax ñuy wax li ñuy wooye one health maanaam benn wér-gu-yaram tey ji wér-gu-yaram boobu noonu nañ jàpp ne du wér-gu-yaramu nit rek de mais wér-gu-yaramu mala yi ci la bokk wér-gu-yaramu gàncax gi aussi ci la bokk maanaam li ñuy wooyee environnement toujours ak santé animale maanaam jur gi nga xamante ni wala yoo xamante ni xëy na mën nañoo jëfandikoo ci lenn ci ñoom wala lenn loo xamante ni bokk na ci ñoom boobaa aussi mën nañ fa jóge am ay feebar yoo yu ñuy woowe zoonose mu indil ñu ay jafe-jafe yu bari na ñuy wax ne Covid bi foofu la jóge chinois yi la ñuy lekk jëlee ko ca àll ba mu jural leen ye benn doomu jàngoro doomu jàngoro boobu doon loon luy waral luy faral di ñëw ci nit ñëw si si si si lanati encore loolu moo dem ba yegsi si doomu aadama yi def bu ku mu jàpp ku ne bu la rayut da nga am wërsëg lool ñu bari bu leen téyee da leen rey kon euh, nañ jàpp ne pour wér-gu-yaram gi gën a mën a dem ca kanam li ci ëpp solo mooy suñu bosu bopp waaye mala yi ñuy nekkal ñoom it nañuy fexe di leen xool bu baax ba buñ ci gisee si environnement maanaam garab yeeg ndox meeg li ñu wër yëpp lu ñu war di xool la di ko seet di ko setantal ba bu ëllëgee luñ ci gis luñ ci warta gis rek ñu mën ko wax ñi nga xamante ni ñoo ci bokk kon euh, dañuy wax rek ne euh, boo xoolee li ñu fi wax yëpp di nga xam ne santé publique képp ku jóg ne man moom la bokk nga si ñi dëgër fit lool ndax ñi ko mën a def bari nañ euh, wax naa leen leen li ngeen di def nii boo xoolee jeexantal bi muy bi nga xam day faj mala bi te bu ko fajul mala bi mën na wàll boromam kooku la muy def noonu aussi santé publique lay def ki nga xam dafa yar ginaar gis jaay kooku aussi la muy def wóor na ko ne ñamiy jaay buñ ko lekkee mën nañ ci jël ay lorange kon euh, euh, kay faj ginaar yi kooku aussi ma ngay def ma ngay def santé publique yaatu na yaatu goo xamante ni euh, boo ci duggee loo ci wax rek xëy dina am loo xamante dinga ko di nga ko bàyyi euh, mesures yi lu ama am solo la te dina la mën a dimbali ba lépp luy catastrophe lépp luy musiba bu yegsee di nga mën a am ay tëralin yoo xamante ni dana tax ba sa wàllu wér-gu-yaram dana mucc ayib te lenn lu lay jaaxal du ko am kon santé publique nañu jàpp ne euh, ña leen di taxaw wala nan la ñuy def ba accident boobu doo ko am ñooñu ñu ngi ci champ wu santé publique euh, mat ay ñaari weer ñett euh, mbooleem ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci santé publique demoon nañ Kaffrine di xalaat di tëral ba ñu defee lël boobu ba génn ci am na ay li ñuy woowe recommandation yu ñu defoon jébbal ko ñu ñu ko war a jébbal ba accident yooyu mën a wàññeeku waaye ñun ñëpp gis nañ ne accident bi gën a metti ci is Kaffrine googu la xewee te daanaka mu ngi xew ginnaaw bañ fa jógee xalaat li ñuy xalaat bind li ñuy bind jébbal ko ñu ñu ko war a jébbal kon daanaka du yow miy def santé publique rek mais ki nga xamante ni boo xalaatee jox ko lan ko xalaatal moom mu jëfandikoo ko kooku aussi bu buñ ci nekkee dañuy profité pour sensibiliser ndax wax na leen sànq mbirum garab balaa may ñëwaat ci accident yi garab yi ñuy jënd benn gëstu bu ñu def fii biir Touba dafa ñoo won ne ñi nga xamante ni dañuy faral di dem ci dépôt yi di fa jënd garab. kenn ku ne xam na ne mënuñ nekk benn loolu moom du luy bett kenn waaye la nga xamante ni moo ñu ci bettoon ñun mooy la garab yee jar ndekete bari na ay dépôt yuy jaay garab garab ya ñuy jaay daanaka moo gën a seer yenn saa yi ñaar yoon ba ñetti yoon garab ga la muy jar ca pharmacie bi kon bu ma ñëwee fii yàlla dogal ma def gëstu boobu wala bokk ci ña ko def beneen bi ci topp mooy ci wàllu accident yi accident yi gëstu yi ñu ci def wane na ne ñetti mbir a koy indi te loolu it euh, jarul sax gëstu pour xam ko mooy nit ki nga xamante ni mooy dawal bu deful la mu war a def wala melut na mu war a mel wala moytuwul lu mu war a moytu accident mën naa am beneen ba ca topp mooy oto ba muy dawal oto dañuy faral di wax naan. ekip mën nga japp ne do waxam bo lambe frein do daj dara bu dara nekké sa kanam wor na la ding ko mbeuk amna ñu am fitu dawal camion sax bo xamanteni amul frein benen bi aussi moy yoon yi ñi jël pour diko dawal yoon bi bu melut na mo wara mel wala sa environnement bi la nga wara gis gis-gis bi gëna leer ci yoon bi ba nga xamne yow fi nga jëm euh mën na am à tout moment kon nañu gorlu ci ñetti mbir yoyu fexé ba nga xamanteni duñu du nekk lo xamanteni luñuy sonal la señ bi ñew na ci intervention santé publique bu mak buñu ñu euh 2020 jamono jamonoy mbass mi 2021 mu taron lol, lolou aussi intervention santé publique rek mo meuna dimbalé nit ñi ba nga xamanteni ni meuna def manifestation yi ñu bëgg def kon ci nga xamanteni ni la tànnoon pour ñu meuna def ay tëralin yuy meuna dimbalé ñi ñew di magal ci ñu magal ci jamm dem di Covid bi du du yokku du am ben bu muy def bir Touba ak liko wër wala bir Sénégal yépp wala bir monde entier lolu bañ ko euh, man boko Nazi, porto porte parole yi ñi doon wax liggéey bi ñu def yan jeexantal la am bi ma te tënkoon ko ci wàllu santé publique moom moo ñu dimbale ba nga xamante ni benn jeexantal buñ mën wax amna ci euh, période 2020 ak 2021 euh, bi bi dajé won ak bi dañu won ak mbass bi té lolu tamit liko waralon bi ci ëpp solo mënuma ko ñaaka wax moy euh, lima doon wax sank implication communautaire manam fexé ba stratégie bu mën di def ak lepp lo mëna def ci walu wër gëram ku len koy defal ku ne té le taxé dana len ci bolé ñun lolu lañ télo na comprendre jëfëndiko ko fexé ba dem ci sëñ muntaha waxtaan ak mom dem ci sëñ Bass waxtaan ak mom dem ci ñeci des ñep wax ak ñom ba lañuy def ñu ànd seeg ñun diko def ak ñun talibé yi aussi diko roy diko def gis ngeen né ma masque yi ñep dañ doon wax ah, ah, nañ tak masque ngir sëriñ bi ba ñuy ñu bari lañ ko doon def bir jumaaji ji biti jumaaji ji résidence yu mag yi euh dañ doon wax né nañ jël moo tax ba amuñu woon lu dul ñun yaakaar ju rëy ne buñ ci génnee eh, léppay baax yàlla dimbali ñu defal ñu ndam ci barkeb Sëriñ Tuubaa euh, amuñ ci benn léegi euh, li ma bëggoon euh, li ma bëggoon a tëjee mooy maanaam benn xisa xisa buy tax ngeen xam lan mooy santé publique pour tëj xisa boobu mooy ne benn dëkk la woon boo xamante ni euh, dañu toogoon benn bis ñu am ay jafe-jafe yu mag maanaam li ñuy wax euh, catastrophe ndax euh, gis nañ ne ci suufu benn montagne ko li ngay xalaat mooy sóobu ci biir ndox mi ndax mën ngaa fay jéem a sauver ay doomu aadama te ci biir loolu courant ndox mi am na doole am doole goo xamante ni ku sóobu rek ne da ngay sauver kenn yow sa bopp dangay dangay lab nit ñi di dem di dem di jeex ba benn seen ndaw yegsi bi mu yegsee mu xool teen gis montagne bi gis ne ndox mi mu ngi wàccee ci kaw di wàcc ak doole mu leen déedéet damay yéeg ci kaw bu ma yéegee ci kaw dinaa xam ndox mi fan lay jógee ma jéem a fexe mu taxaw wala mu wàññeeku boobaa ñiy jeex danañ mën a wàññeeku wala loolu mu mën a mën a dakk kon kooku la muy def noonu mooy fexe ba taxaw taxawaayu lay yàq du yàq wala buy yàqit lu néew lay doon loolu mooy taxawaayu santé publique kon ñu jàpp ne képp kuy def santé publique yaa ngi dimbali nit wa alpha wafa wa al wafa ñu ngi def ñomit santé publique kon jàpp leen ne euh, liggéey bi ñoko bok fi ma toll ni man japp na len comme samay naataangoo te wax naa ko euh, euh señ bi euh, euh trois ma réeraat seexu naa sëñ ko man fama nek taxna ma mën ko jappalé ci lu bari ci waxtan kat dina taxaw suma kem katan ndax yef yi sama yef la ndax samay natangu ngeen ben ñaarel ba fi la dekk ndax suma nijaay fi lay yewoo li ci ëpp waa daaru muxti la kon man jàppal na boole naa sama bopp daaru te lépp luy doxal dëkk bi bu ma ko xamee lu ma ca sama kem kattan dinaa ko def euh, euh, pour euh, jeexal suma waxtaan damay indi mën naa wax ne addisu yonente bi salaa salaam la bu ma la ca sëriñ Touba wax nangoo ko ci euh, addis yi nga xamante ni dañ ko indi mooy ne boroom xam-xam bu génnee àdduna euh, yàlla dafay fexe lam daan dox ci lu baax mu def ko jëmm mu taxaw biir bàmmeelam di ko wétali ci biir wétal googu dana fexe ba lenn luy niroog sax wu koy lekk du fa taxawaalu noonu lay nekkeek moom di ko wétali ba ñaan dama koy sàkku foofu ci waa Daaru Muxti ak kilifa yi fi toog ñu fexe ba bu ñu suñu borom dimbale yi ñu doon borom xam-xam te lii ma ñëw def ci tey ci ngoon gi suñu borom booleel ma ko ci ñi nga xamante ni jëf yi mu nangu la ba jëf ji mën a doon jëmm liggéey suñu bàmmeel mën ñu ci mën ñoo mën ñu loo dimbale sëriñ Tuubaa waxaat na tuuti foofu tamit ne euh, révélation bu ñu defal euh, yonentu yàlla Muusa alayhi wa salaam la boobu euh, suñu borom wonoon na ko ne ko bu fekkente ne da nga dem jàng lu baax ñëw di ko jàngale loolu ngay defal nit ñi noonu mooy leeral sa bàmmeel leeral bàmmeel bi nga xamante ni euh, dina la dimbale ba keroog bis man dama jàpp ne même bu dee lu ndaw loolu leen jëlee ci waxtaan wii ma doon waxtaan xëy na mën na nekk lu may jëriñ ëllëg ñaan ku ñuy dimbale ba lépp lu ñu fi wax bu dee lu amal askan wi njëriñ la suñu boroom nangul ñu ko bañ mën ko jëfandikoo bu keroogee alaaxira foofu lay tëjee di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di feddaliwaat sama ziyaar di feddaliwaat suma eng pour jàpp ci liggéey bi sëriñ Seexuna ak ñi mu àndal ñëpp waa Al ah, taxaw taxawaay ba ma war a taxaw pour lépp incha allahu rabbi ba ñëpp mën ci am ndam fi baraka cheikhul xadim jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, professeur Serigne Massamba Diouf ci waxtaan wu am solo bii nga àdduna bépp ñoo ciy jariñoo loolu nag du lu tuuti kon ñi ngi ñaan yàlla képp koo xamante ne am na dégg na ci waxtaan wi loo xamante ne jariñoo na ko loolu yàlla na ko yàlla làqal fu yàq yëggut te am nañ ci rafetu njortam teg ci ndax yéene nga ci doxe engagement tamit nga ci dugge loolu nag wax dëgg yàlla tamit lu rëy la ci waa mu assasa li nga fiy fekk si ak li nga fiy jëlee ci wàllu njariñ yaakaar jooju nag yaakaar ju réy la yàlla na ko yàlla àggale sant nañ bu baax xam naa ne ñu sant rek suñu kilifa gi nga xamante ne tey moo ñëw ngir jëmmal jataay bi muy sëriñ Xaadim Mbàkke docteur moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla Mbàkke di kenn ci mbootaay gi ndax moom ci la bokk ci la bokk moo ci boole boppam te loolu tamit ci jataay bii nii bokk kook mbokk mi nga xamante ne bokk nañ lu ñu yëngatu fële ca Touba muy lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram moom mit moom moom yàlla baaxee ko asalëf ci wàll wàllu googu moom tamit xam naa ne euh, danañ ko jox kàddu gi rek mu def ñaan su ko defee ndax dafa mel ne waxtaan wi laaj yi moom yaakaar naa du xaj ci li des ci jox sëñ sëñ bi su ko defee mu def ñaan su ko defee ñu door a ñëw ci laaj yi incha allah. صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وصلى الله وسلم سامع قائلا البعث ينسى عن لله وخديما لرسوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بروفيسور مانگ لينيو دلزياري dekkal ndono li ndax wax nañ ne sëriñ bi moo waxon borom daaru ne ko dama bëgg nga fété ma ci njàngale mi tontul ma sama mbokki doomi soxna yi wax ne dama fay taalu jàngu kon ñoom te ñoom fi doon ay setaat lañ duñ seti ñu ci bari ay setaat lañ duñ seti borom daaru ku mel ni sëñ karaam yi tey sant bu baax rek sant ñëpp waaw mm, sant sant la bu baax euh, sant professeur juuf bi nga xam ne moom mooy doyen sant leen ñoom itam bu baax ci liggéey bi nga xam ne ñoom ñun ñëpp lu ñu ne ñun lañ sàkku ci yéen itam ñaan bu baax Eh, ci yan bi nu yàlla yan jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ xaadim ci kàddu yu am solo yii nii ak eh, teewaay bi ngir jë yoo xamante ne aju ci waxtaan wi su ko defee sëriñ bi mën cee tontu balay waxtu wee jot xam naa ne ñu jéggulu rek ñi nga xamante ne andi woon nañ fi ay laaji fiq incha allah euh, ñi nga xamante ne ñoo amee tontu laaj yooyu ak gëstu ko dinañ ñëwaat dinañ jotaay ngir tontu ci laaj yooyu ñu fàttali mbooloo mbokk yi rek ne suba incha allah docteur Khadim jaañ moom la ñuy fas yéene dalal fi jotaay bi muy économiste. ku ja euh, maanaam réew yi nga xam ne dañoo soqaliku te jaari ko ci wàllu mbay yoon wi ñu jaar naka lañu koy misaale ak nu ñu koy misaale ci senegal loolu la fas yéene ànd ak ñun incha allah kon ñu jox kàddu gi Oustaz Hamdou Mbaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor wu sell wu tedd wi professeur ñu ngi lay nuyu wéral saw yaram te bàyyil ak sam xel di rafetlu waxtaan wi lool tomb bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe njot firndeel na ko tey bàyyi nañ ko xel bu baax te waxtaan wi ni nga ko waxee léegi mën naa ni yaatu na lool ci àddina si ba tax ñu bëree bëree bari jëriñu nañ santé publique day lu am solo solo si foo ko takk rek weesu na ko mbokk mi mu doon laaj ndax war boole askan wi ndax du loolu moo tax ñu sos waaw loolu mën nañu wax ne bokk na ci li tax ñu boole ci euh, comité de santé yooyu euh, daanaka pour askan wee tax ñu def ko d'ailleurs ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy piloté ñoom ñoo koy géré waaye boo diggee ñuy wax boole bi ñun yemul ci comité de santé bi nga xamante ni ci hôpital bala mais programme bi ñuy tëgg wala politique wala stratégie maanaam tëralin ñuy tëralin yoo xamante ni ci biir askan wi la jëm dépassé na hôpital bi foofu la ñuy wax ne dañu fa soxla ñi nga xamante ni ñoo tax ñuy def loolu ñu mën a bokk ci activités yi bokk ci stratégie yi. loolu euh, kuréel gu mag gi ñuy wooyee OMS moom ci boppam dafa sàkku ñu ñuy faral di def loolu lépp luy programme rek buñ koy tëral nañ xool lan. taxawaayu askan wi ci programme boobu fan la war a mën a taxawee ba programme bi mu mën a atteindre objectif yi pour gàttal sinon du fi xaj mbokk mi nee na foofu nga daaneele mooy OMS organisation mondiale pour la santé defe naa moo jumut wala waaw maanaam ak ñu ko sos ak lan moo tax ñu sos ko OMS boobu euh, sos ga yàgg na lool mën nañu wax ne euh, en tout cas ci pays yi nga xamante ni ñooy euh, pays africains yi ñu ngi commencé di ci jëriñu ginnaaw indépendance boobu la ñu di gis organisation boobu suma ma jubal 1945 après guerre mondiale bi boobu la sos gi la sos gi la sos gi tàmbali. fexe ba. li ñuy wooyee santé mondiale wér-gu-yaram ci àdduna wërgal këpp mu mën koo mën ko téye fexe di wax réew yi nan lañu war a mën a doxalee ba seen système de santé ba wér gu mu seen askan mën a mucc ayib loolu mooy liggéey bi nga xamante ni moom lay def mu ngi koy def na ko war a defee am defeewu ko ko war a defee loolu aussi beneen la xamante ni xëy na mën nañ ci xuus lu yàgg-yàgg jërëjëf mbokk mi mu doon laaj moo ni santé bi nan la gisee ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu ci wàllu fajum cosaan ndax dafa gis ni léegi loolu dafa bëri lool. waaw loolu euh, xëy na mais fajum cosaan kuréel gi ma la fi wax léegi di OMS da koo nangu nangu na ne lu baax la ministère boo dem aussi ci en Afrique di nga fa fekk. li ñuy wooye division maanaam benn pàcc goo xamante ni wàllu médecine traditionnelle boobu fajum cosaan googu moom moom moo ko tax a jóg waaye nag lu ñu war a xoolaat ñu mën leen a organiser tegal leen ay normes yoo xamante ni buñ fa jaaree eh, benn loraange du ci am waaye demeewul noonu nag loolu mën nañ ko reconnaître ñu ñëpp am nañ ñee ñu ngi loolu xel mënul nangu ne lañuy ñuy def loolu lu baax la waaye nañ ko organiser xëy na bu ëllëgee dana mën a am leneen lu mu jural askan wi. jërëjëf mbokk mi nee na bi mu rafetloo waxtaan wi dafa doon sàkku ci rek nga wax ko ban tàggatu yaram nit ban sport moo gën ci nit ki di ko def ngir mën a sàmm ak wér gu yaram. waaw sport bi gën moom euh, bi gën ci nit mooy. waxee maanaam euh, lépp lu ko jubu euh, ci wàllu tàggat yaram la muy def di ci euh, di ci am maanaam neexu bakkan xaw ma nu ko mën a tuddee boobu mooy bi gën ci moom bu dee dox la baax na bu dee daw la baax na bu fekkente ne feey la baax na bu dee toog sa biir néeg di baagante ba ñaq it baax na l'essentiel mooy bañ a toog lekk toog naan toog walla tëdd nelaw loolu la tere mais xeetu sport ma it mënoo ko def mag moo xamante ni am na juróom fukki at yu teg wala juróom ñaar fukki at doo na ko da ngay daw boo boo ko dawlooyee mën na koo indil ay loraange lépp lu sa yaram mën rek boo ko defee baax na si yow. jërëjëf mbokk mi nee na bi mu la waxtaan mi ngi lay sant bu baax a baax a baax doon laaj nga labiré ko ne yan xeeti lekk daal la nit ki war a mën a lekk ngir bañ a am AVC parce que gis na ni léegi loolu dafa bari lool. bul lekk lu saf suukar trop bul lekk lu niin trop bul lekk loo xamante ni aussi lu saf xorom la suukar xorom ak niin lu ñu war a moytu la pour mën a am wér gu te lépp lu ñuy lekk buñ ci mënee boole fruit maanaam euh, lu mel ni tàndarma wala dimb bi ngay fekk ci àll bi sax dagg ci doomi yëy ah parce que loolu moom moo nekk li la gën a jege li la gën a yomb loolu sax baax na ci xeetu xeetu wér gu lekk yooyu euh, moytu yu mel noonu ba pare. جيرين دوم ادم كون نيكوي بولي سوني ليك جيرو جيف لول داي ملني داني ديلو في القران الكريم رك ودعو لنا ربك يخرج لنا بما تخرج الارض wér gu yaram waaw li gën daal mooy bañ a doonu sa docteuru bopp maanaam dara metti na ma rek nangam la war a doon xaaral ma dem jël garab sàngam loolu ñun dañ koy tere li ñuy wax mooy lépp loo gis sa yaram lu soppeeku loo amul habitude di ko gis sa yaram demal kër docteur nga wax leen li nga yëg ñoom boobaa dinañ la wax fi ngay jaar jërëjëf docteur ci sàkk allah